asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen di nuyu di leen ziyaare di leen baal àq di baalu àq di leen wax ne nag tey dañ leen indi leen garab koo xamante ne nii moom la ñuy wax xiis xiis nag luñ ko gisee moo nekk nii lem lañ ko defaree ak nen ak la cay dem di ci biir secret baa ci biir waaw xiis bi nag day ubbi xelu xale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 asalaamaaleykum ñu ngeen def baa ngi si jàmm groupe groupe ñu ñu tudd waa Marodi nuyu naa leen namu naa leen teen film yi def neex na lool kontaan nañ waaye nag man Marème moom filmé moom Marème moom moo may daaneel man wax dëgg yàlla waaye nag Lalla def na erreur ndax Lalla fii daa ngi moo ko jàpp mu mu génn secret boobu ndax ku nekk am nga am nga sa passé ku nekk sa passé yaa ko moom sa bopp comprendre nga laala nag bu woon génne secret jaamu waaye génne na ko ngi nii moom ne ëmb na ci ëmb bi mu ëmb kontaanu ci ndax jëkkër ji topp na ma reen xam nga lépp nag fii daa moo ko indi est-ce que nag moom sëy moom mënu cee tas jëkkër ji ànd ak mooy lépp daal mi ngi ci daal waaye nag ñi daal lañ wax jigéen daal du fii daal fii daal moo indi yëpp moo indi problème bi yëpp waaye kontaan nañ ci filoo bi neex na lool eggal leen ko nag. maa ngi déglu ay message am bi laalu wax dëgg la da wujjee jaarul ñaaw wujjee la jaarul ñaaw mais théâtre ak ku nekk ak sa rôle la jox mën na bañ a nekk ci yow comme réalité bi mais fallait que nga ko normal comme noonu la ko joxee j'espère que ne loolu rek la mais nit moom xanaa su xareewul noonu bay yàq moroom wu jëm ji yàq viom daal gisuma loolu mais dama gis que ne théâtre la j'espère que tam mën na nekk am nañu yàlla may xool boobu waaye am nañu yàlla parce que nit du jouer loo xamante ne du par hasard nit lu mu joué rek amoon na fi nit lu mu joué rek amoon na fi mais théâtre bi moom suñ nu ko mënee gaaw joxaat dinañu neex tarab man moom dama ci gis sam bopp man dafa am ay réalité bëri yu ci yu dox yoo xamante ne nii sérieusement man moom dama ci gis sama bopp man man dama ci gis sama bopp man xama dama ci gis sama bopp je te jure ah, neex na trop trop bu ngeen mënee daal gaaw moom ah. ah daal ñuy mayaat saison 2 bi daal dinañu neex torop waaw parce que man daf ma wéetal torop waaw je suis à rek fii moom mooy loolu dafa wéet ci théâtre YouTube bi la ñu mën concentré wu mais théâtre nag bu am sens comme théâtre maîtresse d'un homme marié waaye bu am sens bu yeete ok waaw. asalaamaaleykum yéen waa Lu Xew TV. waaw sànq dama seetaan seen vidéo bi si sànq dama seetaan seen vidéo bi si YouTube bi ngeen ni ko bëgg a commentaire mën na ko wax si fii moom man moom comment man ma maîtresse d'un homme marié ah man li ma man man li ma si man li fin bi pour man amul chance parce que fin bi boo xoolee film bi amul kenn ku ci mujjee fu neex amul kenn marake bi nga xam te moom moo ci moo ci naroon mujjee fu neex pour pour pour Moustapha takk ko ñi dem wax ko xawma lan pa boobu dem wax ko dëgg bi yëpp bam bam ray ko série maîtresse d'un homme daal pour man amul fin bi moom amul chance dëgg yàlla man dama koy suivre dañ maa neex ñoom ñëpp dama koy suivre mais fin bi moom amul chance parce que kenn mujjeewu si fu neex kenn mujjeewu si fu baax boo xoolee ñoom ñëpp fu metti lañ mujjee et pour man loolu noonu surtout Jalika Jalika fi mu mujjee warul woon mujjee foofu parce que Jalika amul lenn lu bon lu mu joué si film bi Jalika normalement au moins ak ak lu metti li ko dal ci film bi yëpp waroon na am lu neex sax au moins ci fin bi mais amul dara lu ko dal te li mu fi mu mujjee moom aussi warul woon mujjee foofu noonu man wax dëgg yàlla loolu laa ci gis. pour man ñi si waroon mujjee pour man ñi si waroon mujjee. pour man ñi si waroon mujjee lu na xari mooy xaritu Lalla bi ko doon diggal à chaque fois pour muy def pour muy pour mu bañ a bàyyi mu sedd ak ak ki doon chantage Marème ak ki doon chantage Marème ak Biram ñoom moom. jiwee wuñ fi dara lu baax ñooñu seen vie li passé seen ginnaaw yu yoo li ñu def seen ginnaaw ñoom waroon nañ ko regretter loolu waroon nañ ko rëccu mais amul dara lu au contraire Jalika moom moo mujjee fu naqari biram mujjee fu neex c'est c'est pas possible woon demee noonu en tout cas vraiment xaw xaw nuñ ko defee noonu mais pour man amul chance dama leen di seetaan nag mais seen fin bi moom mooy loolu. salaamaaleykum na def baa ngeen si jàmm ça va. dama bëgg a participer ci mën na farma jaañ série bi wax dëgg yàlla na sens waaye man daal laala moom li mu jee def ak ko parce que kenn ku nekk am nga sa passé waaw laala moo xam ne am na passé boo xam ne xëy bëggul kenn xam ko Mariam it passé bi laala bu ko woon a partagé parce que kom que avant muy see see jaaj la loolu waru ko loolu nag man ci ma gisee man firange rek laa gis na moom moo ko jàpp tax mu partagé ko waaye Marème daal moo digg yàlla moom ni mujjee def ma marqué trop def ma dérangé trop moo koy seetaan mën nu sax jooy parce que dafa metti daal salaamaaleykum waa Lu Xew TV mbaa yi man daal xam nga lu ma jaaxal te metti ma hmm, mooy Jalika mi nga xam ni musta am lu ko neex ci film bi ba pare ñu tourné ñi dafa am cancer loolu pour man warta mën a nekk li ma gën a metti gën ma metti mooy rak yi rak nii ngeen def nii dara dara kiwu ji parce que moom dafa waroon na dund lu neex pa muy rey nii di mujje prison salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa leen di béggee bu baax di leen siyaare leen ñaanal jàmm ju sax dëkk waa di ñëw rek joxe sama xalaat ci eh, série bi ak eh, à ni mu jeexee eh, série bi moom neex na neexoon na trop à début ci début ba ba daal neex na trop trop boogoon sax mu jeexee nii ma ndax série moom neexoon na trop te dafa yete surtout jëlika ak ni mu ni muy sëyee moom. Ah, dafa dafa doy wax daal sëyam bi metti woon na ba ci jeexantal bi nga gis fi mujjee ah dem ba gisaat keneen amaat ku koy bëggaat tolof tolof yooyu daal mu dund yëpp ci série bi mais man dama jàpp ne série bi moom buy jeex dafa war na jeex comme ça jëlikaa ni mu sonne woon femme boobu wax na ko ni mu ci ni mu sonne woon daal ci à la fin bi dafa war a dafa war a neex ci moom même yaayu Cheikh Diagne ni mu doon dund ak jëlikaay bi dafa war na dafa war na metti ci moom ci ci ci jeexantal bi rek sax mën nañu comprendre parce que mën nañu mën nañu jànge foofu ne daal di nga bëgg xam dara fekk na yow lii boo ko xamee du doon sa njiglaay rek mën nañu comprendre foof nga topp si dara rek mu jël sa àdduna yëpp def ko si ndax bëgg ko xam fekk boo ko xamee du du doon lu lay jig daal rek mën nañu ko comprendre foofu mais Jalika moom dafa war na neex ci moom à xaw ma nag day am deuxième session xaw ma mais première session bi daal moom amoon na solo trop mais jeexantal daal dafa des carrément pour man dafa des vraiment. salaamaaleykum mbokk ñu ngi leen siyaar bu baax di leen nuyu leen baal wax te leen baal ñaan yàlla yokk xéewal yi téye koy ati at yàlla bàyyi fi njaboot gi yàlla defal leen jàmm yéen ñëpp ñu bokk ci barke Seydina Muhammad en fait dañ leen dañuy kontaan trop di lu seen théâtre bi vraiment am na sens trop trop trop am na sens ci jamono ñu toll nii xam nga bon vraiment man ni ma ko doon suivre moom dama ci doon yëg sama bopp vraiment vraiment vraiment ñaan séntuñ ko mu gaaw a jeexee ni tamit mën ko yóbbuwaat xam nga ñu lu ñu gis leneen dul lii mooy li may li défaut yi ma ci gis mooy leen rek jëli kaa warul woon mujjee noonu xam nga nit booy dund benn naqaar bi tuuti. war ngaa dem ba benn instant ñu xam ne naqar nit mënu cee dëkk rek ba xëy dee loolu mënu waru mën a nekk je pense mën nga xëy yàlla dimbali la suturaal la nga am benn bànneex boo dund tuut am beneen góor gu baax vraiment loolu lañ ci doon xalaat loolu laa séntu woon ci côté Jalika Marème aussi ci côté metti woon trop mais dama gisoon ne xëy na beneen instant lan la mënoon na koo baal jégal ko parce que mënoon na ko xool ci côté benn kii xale la xëy na xelu dund leneen ba taxoon na heure bi fekko ci kon man comme comme man la ko yàlla booleel ñuy wujjee man ma koy suturaal loolu waroon de bu ko defoon rek finaalu dafa def erreur dafa topp ay waxi xarit ba lor doomu jàmbur bi madame di lañ waaw bul découragé noonu la champion dëgg parfois yi dal ko loolu bu yàqul dara sa palmarès mais kii la copine de madame la am saa ndaanaan nga gis naa ni nga taxaw marem ci fin bi soutenir nga ko def lépp waaw te aussi fi nga finalisé ak moom rafetlu nañ ko trop mooy demal man ma dékku coow li ba ci kanam loolu ndaanaa a koy wax foo mën di nekk naa la fekk man ma gere li ci des kooku dañ koy félicité mooy am saa moom champion la vraiment dina ñaanal jàmm daf nga yëfi yëfi yëfi gor def nga yëfi xarit fu muy taxaw doomu ndayam dem ci côté biram biram moom départ bi da doon ñàngal def ay soog xam mais fin bi la moo tax mu bëri ay retaan retaan biram li nga perte ci fin bi dafa bëri ni nga ko ni ko seddalee fin bi da nga seddal ba mu jeex tàkk-tàkk xaw ma mu demee noonu waaw loolu tamit bëgg naa ñu ñu xoolaat ko daal buñ koy defaat mu mu bañan di dematee nii daal dégg nga loolu laa am lu ma ci doon tënk rek bon ni ko rafetlu di leen ci ñaanal jàmm vraiment Sénégal yëpp Afrique àdduna ñëpp a ko doon suivre mais gàtt na gàtt gi nag moo ci metti trop dafa teel a jeex ngeen ko ñamal ba ñëpp jàpp ko ngeen xëy na jeex na dimbal leen ci ngir yàlla moom la ñam daaw ma seetaan théâtre de mais théâtre bi moom fi mu doom doomu aadama yi bari na de parce que Serigne Touba ok sëñ Fallou. maa ngi leen di nuyu di leen siyaar waaw ah, man film bi neex na trop wante fin bi mooy problème bi quoi mooy du femme bi wax rek fin bi normalement waroon na am Jalika Jalika waroon na mën a def mariage am quoi vraiment tamit man loolu laa joxoon quoi maa ngi leen siyaar bu baax maa def mu wax dëgg yàlla am na sens fin bi daal mooy problème bi quoi fin bi wax dëgg yàlla mooy problème bi waaw Jalika woon normalement son nañ ci film mu da ci waroon dund quoi ndax sonn na trop quoi waaw man sama xalaat daal laa ci gis maa ngi siyaar ñëpp ah, siyaar naa leen bu baax a baax. machallah neex na torop parce que au début daan dégg ay nit naan série bi baaxul affaire yi bu fekkee seetaan mais man série bi maa ko bëggal sama bopp te ki gën a tax ma koy seetaan muy jali jalika non nit ki dama ko bëgg jalika maayam bon jalika lu muy dund nii c'est vrai que non am na sax mais fu mu waroon mujjee aussi feebar bi ka dal suma seen li yooyu buru ko woon dal waroon na am jëkkër bu baax bu koy mën a yor yor ay doomam yoon neex tu mais peut-être tamit ñu ñuy xaar beneen saison bi peut dina dund la neex moom tamit waaw bon Marème aussi kii waru woon def loolu tuddati làllax wala woon def loolu moo tax gis nga seytaane nekk ci noppam rek di wax moment bi ngay mere lay seytaane di ñëwee nag di loolu lu yëpp jaru ko mais je pense que lalla <laughs> aussi dina rëccu li mu def nii dee dina ko côté cher. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di rafetlu. seen séeri bu nga seetaan à chaque chaque fois mosuma ko raté benn yoon mais ma bëggoon a contribuer aussi série quoi di wax euh, man li ma gis ni ki loolu moo am sécurité nar am du ma expert nag seetaan rek laa am mais dafa am li nga ne dama ko gis si kii bi quoi série bi mooy kii quoi série bi dama gis euh, jigéen yi fa nekk yëpp dañu bañ wujju te man comme dañu joué théâtre c'est purement sénégalais euh, Sénégal lañ ko joué ñu joué rôle femme sénégalaise mais ma buggoon nag prochaine fois boo ndikee defaat gars nañu nañu nangu wujju parce que ah Sénégal fii moom d'après li ma gis gars bañ ñu wujju ah bañ ñu wujju te dañu ne euh, les musulmans ont a droit jusqu'à quatre femmes waaw léegi man foofu rek la amoon su la may wax nga xam te ne dañ ko nar a xoolaat quoi nu koy nu ngeen koy doxalee prochaine série. waaw asalaamaaleykum. a naka ñu ngi leen di maa ngi leen di ziare bu baax naka Sénégal mbaa yaa ngi ci jàmm rek. waaw seen épisode bi nag euh, mu neex na trop nag waaye am na si njëriñ am na yeete am na tamit euh, lépp daal am na si àdduna bu amee jabar tamit ak doo war a composé ak boo war a boo demee ba si xel war a si ñaari jabar tamit war nañu lépp daal si ñaari jabar si nekk ak sa àdduna ak góor boo xamante ne tamit mooy loolu moo tax di consommer yenn leen xam ne mooy loolu tamit lépp am na si quoi seen théâtre yi moom dëgër nga macha allah ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp nag muy góor ak jigéen ku ne li nga bëgg yàlla koy yàlla suñu borom defal leen ku ne nga bëgg neex na trop <clears throat> man seen seen kii bi daal moo mun a moo mun a tardeloo sama liggéey des fois damay yàkkamte wàcc su ma ñëwee liggéey su ma dama mën a concentré wu seetaan euh, seeni théâtre bi quoi dëgg dëgg dëgg daane ngeen dëgg dëgg neex na trop nag te boo ko concentré di nga si amee njëriñ quoi ooy di nga si amee njëriñ lu baax di nga si amee njëriñ quoi mbir mi daal daal lu si gën solo nga seetaan loo xamante yow maanaam di nga si gën a am njëriñ te en plus ak loo mer mer meer mer en plus loo boo nekkee si yenn tam boo ko seetaanee rek. si li nga nekkoon da nga koy fàtteyaat te loolu tamit baax na si doomu aadama dafa nag da ngay wàcc liggéey nga mer wala ne si leen sax ne si leen di jaaxle affaire yi noonu mais bés boo ko seetaanee rek lépp loo kii yoon da koy fate man mu Tamba laa tudd oui mais maa di euh, di nuyu yéen ñëpp muy góor ak rek waaw waaw ngi yéen a euh, doomu aadama yi nag parce que doomu moom. toog di seetaan benn affaire nga toog ree eh, loolu tamit neex na yan mënuñu leen fay yàlla moo leen mën na fay eh, man nag maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak weer ku ne li nga bëgg yàlla na ko ci borom defal la yéen ñëpp man nag samay olof naar dafa xawata <laughs> leer quoi waaw xam nga joolaa moom buy dégg olof moom da ngay taqale mais di nga xam kii lu wax. waaw maa ngi leen di maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp di la wax ne affaire bi moom na gën a yokk yokk leen na gën a bëri rek waaw moom man moom mooy moom mooy jeexal sama connexion waaw bu ma nekkee Sénégal nag wiiri wiiri laa doon si tamit bu ma génnee moom mais ma commencé naa seen kii bi nii oh dëgg dëgg neex na trop nag man moom rek moom mën a westaay sama liggéey damay yàkkamti wàcc gisoo damay télécharger sama connexion bi dama koy fay di télécharger di télécharger seen émission ma koy xoolaal par benn benn. di xam li ngeen di wax di li di def waaw maa ngi leen ñaanal bu baax ak man tamit nag ko am naa si xam-xam bu bëri te su ma may soxna tamit naa xam ne moom la comportement bu mag lii ak lii ak lii ak lii tamit waaw maa ngi jégalu bu baax fukkaat na gudd naa nag mais maa ngi di baal neex na waaw ni doy waaw baax na ok maa ngi leen nuyu yéen ñëpp. alhamdulilah. Euh, dama woote pour jóge suma opinion vraiment épisode yi neex nañu lool mooy ram nag ki ñu war a si war a soutenir problème bi métti na loolu mais tamit kii na daal moom ak lala kii mais képp ku ku daan seet ñaareel daal boo gisee may ram nga jël ko épisode neex na am na sens rôle yi metti na mais noonu lay demee quoi film bi noonu la mun a demee quoi kontaan ci yéen rek continuer bu ci kanam incha salaam salaamaaleykum wàllu xew maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu yéen ñëpp di nuyu waa maîtresse d'un homme di leen féliciter encore seen seen bi moom réussir na moom wax dëgg yàlla parce que li joué yëpp mooy li nekk ci biir kër yi ay réalité la moom di féliciter encore yéen ñi ndax yéen seen liggéey rafet na macha allah mais li nga dëgg rek mooy dëgg dëgg mooy mujjee toujours. joor nu defoon lu mu tra jalika ki nga fecc tuur la rek koo def ren ba déwén mu jig la rek den la ko diin yi noonu tey yàlla àtt na leen ba yaayam ko jur ñëw si kër ga pax dëkk ay bon bonam yëpp ba jiital ko yóbbu ko marem nag moom maa ngi koy kii moom di ko nuyu bu baax marem moom sama fan si wax dëgg yàlla li ma li chance bu am mooy Cheikh Diagne daf koo bëgg marem lu mu mënti defit Cheikh Diagne moom bëgg na ko moom wax dëgg yàlla te loolu mooy kii moom daal li ma ma si ja métti rek mooy moom problème bi da ko waroon a teel waxtaan ak Cheikh Diagne bu ko waxtaanoon ak Cheikh Diagne moom du ñàkk moom am dina affaire bi ni mu ko méttee nii du ko méttee nii wax yàlla maa leen nuyu ñëpp di leen ziar leen wax jàmm ak xéewal. asalaamaaleykum wa xew TV nuyu naa leen lu di leen ziare di nuyu ñëpp di commenter si maîtresse nag ndax namoon nañ ko dëgg yàlla yàkkamti woon mu ñëw trop ndax dafa nekk film boo xam dañ ciy gis suñu bopp. waaye man sama xalaat dama ne Cheikh Diagne am na lum ci xam wax nañ ko ci ndax Cheikh Diagne nu doxee nii ak laala nu mu mel ak moom nii ak ki invité nu mel nii ah, dama ne Cheikh Diagne am na lum ci xam am na lum ci xam de waaye nag adduna moom noonu la nit ki moom bu ko yàqal addunaam gis koo xam ne nekk na fenn ba jëlee ko fa nga jëlee ko ci lu bon lu mu nekk soo ko xamee tam suturaal ko ndax loo gis rek sutura la. fekkoon dafa ñëw ci sëyam di ko continuer waaw kay kooku jër na weer waaye ba mu ñëwee ci sëyam bu léegi loolu lay daw mu ngi toppatoo sëyam kooku suturaal ko man sama gis gis bopp man loolu la te ñu moytu appartement yi ñuy nekk te di nekk ak suñu way jur wala ñuy nekk ak suñu mbokk ci famille bu nekkee moom lu nekk mën na faa xew lu nekk tam mën na fay ñëw waaw sama xalaat bu gàtt rek laa gisee waaw di wax ne namoon nañ ko trop macha allah neex na trop am na solo. maa ngi leen di nuyu ah tey moom théâtre bi moom théâtre bi vraiment vraiment neex na neex na amul lu mu neexewul vraiment yéen maa yéen ngi ci jàmm ah ñun bii moom sant yàlla ñu ngi ci jàmm ci eh, Marème laay njëkk a ñëw non Marème yow moom. mu am leen looy ragal parce que Cheikh lu mu wax je pense il bien pensé à ça comme moom dafa ne bëgg na la ah, bëgg na la bëgg na la moom la laa bëgg ci xolam te yàlla tax waaw mais Lalla moom affaire wujju daa doy waar loolu jarul euh, muy partage dara daal ndax bàyyi lépp ci loxo yàlla man moom man moom bu doon man noonu laay def damay bàyyi lépp loxo yàlla duma ci partager duma ci def dara bu la kenn xelal nga def dara waaw wujj daal moom jarul ñaawoo bokk wërsëg doomu la ñëpp a ko xam ma ñëw si joor joor aussi il mal fait il mal fait waaw sëy boo xam ne say parents yéguñu loolu moom sëy boobu moom dangay waaru comme njaaloo rek yal nañ ci yàlla musal waaw loolu daal moom loolu daal moom ànduma ci ok Dior mais Biram tam waroon na ko mën a jàppale comme moom dañ ko forcé woon ci sëy bee waaw bëggul kee bëgg na Biram kay moom waroon na ànd ak Dior sax au moins waaw mu naxtaan ko tuuti da ko war a wax ne waaw demal léegi nga seet nooy ngay def ak affaire yooyu daal mais man fi ma jàppoon ba léegi maa nga fa bàyyiwu ma la duma la bàyyi xam de mu koy dàq noonu daal ah dangay waaru daal dangay waaru vraiment théâtre bi moom neex na daal man daal gisuma ci neex na ma daal man daal neex na ma daal euh, Amza aussi waa ji moom dafa dafa doy waar waa ji moom c'est trop yaane bi moom dangay waaru waaw warul woon dem ci Marème waaw foofu moom il a mal fait warul dem ci Marème moom bay ñuy ñu koy owal Amza ñuy ñëw di reer ah, ah dangay waaru ak nu mu mën a mel rakkam lañu daal rakkam nañu war na leen sànq sutura waaw waaw ah, ah c'est pas bien waaye c'est pas bien c'est pas bien il la mal fait vraiment gisuma ci leen lu mu ci def lu lu rafet daal lu mu def moom rafetul warul woon ñëw kël marem waaw ok bu fekkente ne li ma wax touché na kenn nag maa ngi jéggalu bu baax Yalla provisoire tout le monde. Bye bye.